am ngeen na ko élection yi daal eh, ñi ci bari dañuy wax naan su ci bokku rek élection du am Sénégal xam nañ ko bu baax a baax ndax xam ngeen ni Ousmane Sonko moom eh, élection bu amee tamu bokk ci rek balaa midi rek comme ni koy gars yi wax bala dix heures sax mën nañoo wax na élection jeex na Sénégal <laughs> waaw eh, ko bi yëpp rek moom la bëgg ba pare ngemm ko teg ko ci kanam na Ousmane Sonko mooy suñu candidat par force loolu nag conseil constitutionnel est-ce que nag dina ko nangu am dégg ce que dina valider candidature yi Ousmane Sonko loolu moom lay ñëpp di xaar ba xam conseil constitutionnel day valider candidature président Ousmane Sonko am du ko valider.